Euh, salaamaaleykum sama waa ji naka mu yéen ci waa ma ñëw wax tuuti ci dernière série mot euh, épisode bi bon man lu ma ci gis mooy monsieur Abdelwane teg ci kooku laay ñëw quoi mais monsieur Abdelwane vraiment il m'étonne quoi parce que man je ne peux pas comment un homme tué grande sœur d'une personne et se sentir à l'aise devant elle man loolu mooy sama sama sama sama sama sama sama lu ma jaaxal quoi vraiment mhm. vraiment euh, ana war naa gaawantu xuus ci dossier boobu noonu jàppale ci jombi pour que gaynde boobu ñu jaar ñu teg ñu xam nga ñu nëbbu ko jant bi quoi parce que c'est quelqu'un de mal. Puis Jules César, bon, avec tout ce qu'il a fait, bon, ñu ñu ko parce que waa ji sonn te te te bi man je vois que moom jël na jël na yoon pour tout quoi pour bàyyi lu ñaaw yi mu doon def parce que li ko dal nii nii euh, am na fu nga yóbbu quoi vraiment ok tey loolu laa amoon ci lu ma doon wax ci épisode 46 bi. się w górę, merci beaucoup. OK.